Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer aouzu billahi min alsheytaani irajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwata illa billah hasbuna allah wa ni'mal wakil mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak si sa sant di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa al Basiir di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool ba lépp lum naa la liggéeyal sëriñ Tuubaa mu am ko nam ko bëggee ànd koog taalibe sëriñ Tuubaa ak jullit yëpp di eh, wax ci turu ASD ñu gën koo xam ci ànd saxal dëgg nga xam ne kon jataay bi ci turu kuréel googu ñu naan ASD ànd saxal dëgg dañu taxawal ko fii ci Touba ànd koog sunu xarit sëriñ Ahmadou Sougou Tasrif di indi leen rek ci lu nu naqari waaye it naqari waa Touba rawatina képp koo xam ne soppeeb sëriñ Touba nga te muy ay ay problème yoo xam ne yàgg na fi ba léegi mënuñ se turi solution ñu bëgg cee andi ay leeral yu gàtt yoo xam ne ni sunu gëstu bopp ak sunuy xalaat ngir lu mën a andi saafara mu mel ne ndoxum Tuuba moomu dafa bari ay jafe-jafe yu ci nekk yoo xam ne ni doy na waar te neexut a wax liggéey bi nag dafa mel ne dañ koo tegoon ci loxol sëriñ Moustapha Dieng mel ne am na ku ca toftaloon kuñ naan sëriñ Abdul Xaadar mu mel ne tàmbalema bu njëkk ba benn pàcc la woon muy wàllum ndox mu naqari mi rek lanu yoroon di ci doxal mujj ñu dem ba ci biir am ndox mu neex ñu indi ko ci mu mel ne dañ naan bu bu njëkk dañ daa mën a wax ne benn compte la woon tey mu dem ba ci yàgg mu doon ñaari kont waaw bu dee ndox mu neex ku ne xam na ne mën naa am compte bay ëpp xaalis ci sama xelaat wala liñ gëstu bu dee ndox mu naqare ma it ab kontam mën naa am dara waaye du demee noonu ndax nit ñi bu ñuy jënd ndox mu neex la ñuy jënde léegi foofu li ñu war a laaj mooy ndox mu naqari mi ñëpp xam nañ ne bu dee période sedd la ñu nekk période sedd la ñu nekk semaine bu ne ndox mu mu neex mi dana génne gën gaa néew 6 euh, million gën gaa bëri 7 millions 7 millions par semaine léegi nattalee leen ko mbokk yi ngeen xool at mi kon ñaata la war a doon ci xaalis par semaine 6 millions gën gaa gën gaa bëri 7 million mën na ko ëpp sax ndax nit ñi dañuy consommer ci bu dee waxtu sedd nga xam ne mooy li gën a néew kon bu dee waxtu tàngoor kon nu xaalis boobu war a kon xaalis boobu lañu war a gëstu fan lay dugg fan lay dugg ndax loolu lu lu lu kiimaane kiimaane la mbokk yi it foofu dafa am lu daw yaram lu ma ci bëgg a leeral ndax léegi nit ñi laajatuñ kiñ jënkoon ñiñ jënkoon laajatuñ leen mooy ku mel ne Moustapha jang ak sëriñ Abdul Xadir nit ñi laajatuñ leen dem nañ ba ci egg ci nit ñi dañu génn ci mbedd mi di di di di di yore seeni paan naan sëñ euh, Cheikh Mamadul Muntaxa dimbali ñu ndox lañu bëgg loolu nag avertissement bu daw yaram la muy mel na ne kon nit ñi am na lu leen naqari lool waaye nag sàmmoon tey war may dëkk bi tax na ba lu bëree bëri nanguwuñ koo def waaye xam nga ne lu mel ne ñàkkum ndox lu tolloog ñaari at nit ñi di ko jànkonteel bu doon Dakar wala Thiès gii xam nga nit ñi révolté woon nañ bu yàgg génn ci mbedd mi kon nag war ma jooju ñu jox sëñ tubaa waaye nag jooju ñu jox sëñ Muntaxaa wax dëgg yàlla waroon naa mën a jóge ci kenn ku ci ñi dënk dëkk bi ñu walla ndox mi waroon nañoo sagal sëñ Muntaxaa waroon nañoo sagal sëñ Muntaxaa waaye waaye nag sagal yoonu murit ndax sëñ Tuubaa moom ñaan na ci dëkk bi ñaan goo xam ne ndox moomu damaa jàpp ne woon ku yàlla cërale nga dem bu téye lu lu toll noonu war nga ci liggéeyal yàlla liggéeyal sëriñ bi waaye nag loo gis lu ne am na ay ay yëf yu nekk ci biir te loolu it muy li kiimaane ndax damaa jàpp ne ndox moomu ñuy jaay waroon naa man di génne moteur yi ñuy defar mooy paan paan yi waroon na ma waroon na ko mën a defar ci yoon lu toll ne tarant nangam foras nekk ci Tuubaa gii ma jàpp ne waroon nañoo am lenn luñ mën a tumuranke lu muy ay ay ay forage yu pan ndax liggéey moom la koy barkeel wérale ci jiitu waaw bu fekkee wér jiituwu ca rek dara du sotti luñ tuddee taf yëngalit muy xool lu loo xam ne deuxième mai la nga gaaw jëndi ko wala nga xool ay wala ngay fatti régol ngir jaay sam ndox loolu ñëpp dem nañ ba xam ko dama jàpp ne buñ rusut sëñ Muntaxa nañ rus sëñ Tuubaa ndax ñi ñëw ci dëkk bii maanaam yaakaar ne dëkku yërmande la moo tax ñu bàyyi seen i dëkki bàyyi ak seeni i dëkki maam ñëw fekk Sëñ Tuubaa fii am baat boo xam ne nit Seex Abdul Ahad moo ko waxoon dane képp koo xam ne nii am nga fi sa pujub néeg ëllëg mooy seere sa seere yowmal xiyam Tuubaa ni mu toll ndakaaru gii day Tuubaa ko ëpp ci liñ mën a wax nga xam ne lu liñ tuddee ay Pikine ak i Géejawaay buñ ci buñ ci toftawluutu woon tubaa du moroom du moroomu Ndakaaru ciw màggin ci ci ci demuwaay loolu nag bu amee ñun ñuy dëkk fi te yaakaar sañ Touba te kenn mun ne munta wax munta onk ndax ngir sàmmonteeg war may sëñ Touba waaye xam nga ne ñàkkum ndox moo xam ne ni benn dem daa nga dem ba doo am loo naan dem ba ci yàgg ngay dem ba ci yàgg doo am loo sango di toog ay fan fani fan muy tëj dem ba ci yàgg mu mel ne farata maanaam daa doon loo xam munta ñàkk dañ ñoo war di tëj war ngeen a xam ne nit ñi dañoo rus sëñ Touba waaye dañoo rus ki fi nekkal sëñ Touba te ñi yore lii it na ma na nañ ma jéggal waaye nag sagaluñ sëñ Muntaxa parce que ku sagal sëñ Muntaxa da nga xam li sëñ Muntaxa bëgg ci dëkk bi da nga da xam li sëñ Muntaxa yéene sëñ Touba kon nit bu la sagalee da nga koy sagal mooy ñoom war nañoo am jomb jomb njabootu sëñ Touba gi nekk ci dëkk bi sax tax nga xam ne naqari na leen benn benn yi di génn di àddu ci lu mel ni waroon nañoo suuraale loolu jéem cee def jom nag. parce que ay ay ay ay ay ay weer a ngi nii nag benn ndox jaru fi benn ndox fii dem naa màggalu Tuubaa gu daaw ga laa tëj ba ba fi mu ne nii ndox ñëwut ñëw ñëwugu fi xam nga ne loolu dem ba jumaay sëñ Tuubaa li wër foofu wala ñu naan euh, euh, cimetière yi sax euh, fu ñu war a toppatoo néew yi ngir ñu ngir ñu man leen a waajal sax robinet yi day tëj xam nga ne loolu gàcc la gu rëy teguñ ko suñ bopp lu dut nag lii indi loolu mooy mbir yu mel nii kuñ koy jox dafa war a compétent am xam-xam te ñu génn nag ci maanaam jox nit koo xam ne nii lañ koy jox mérito wu ko euh, maîtriser wu ko mooy indi erreur yi gis nga liggéey yu am doole yii lii ab dë lii tuubaa doonut ab dëkk am réew la booy jox wàllum ndox moo loo xam ne nit ñi dañ koy utiliser da koy dox ñu ñu ñu ñu xam valeur dëkk bi tarak mbir yi dafa war di egg ci sëriñ bi. ñàkk gaa yegg it am na ci ruq-ruqaan yoo xam ne mënees naa wax la waral ñàkk gi dem ndax ci foofu ci ci ci ci ci ci euh, ñoom maaw googu am na ñoo xam ne nii fa li ñu jëlee seen i essence léegi-léegi it buñ fa fekkut essence it fa li ñu jëlee xaalis buñ solee essence kon lay la lay dal état ba mm, ba lenn li mën naa bañ a egg ci président de la république léegi-léegi mën nañu dal ci yenn côté yi du ñëpp nag waaye ci yenn côté yi la lay tax mbir yi du egg fa mu war a egg wala lay tax la ñuy ñaxtu du mën a saafaru mooy ku ñu seexal nag doo mën a wax noppi ngay def loolu na ko ñëpp xamaale am na ya am na yenn ci oto yoo xam ne fuñ ne bërit dañu soli essence ab station lañ ko jàppale te fii ci maaw rey la ñu taxaw sol ba fees kon ñooñu seeni jëmm lañ fa nekkal damaa jàpp ne nag ku sëñ tubaa liggéeyloo wala nga am yéene liggéeyal sëñ tubaa bul xool pouvoir bul xool pañotim adduna mi da ngay liggéeyal sëñ tubaa ci jaami yàlla yi foofu la ñu toll mais nit ñi di di ñaxtu dem ba yore ay paan benn kër gooy ubbi daanaka bu fekk robinet xel li bëree ci dëkk bi 30 forage loolu gàcce la kenn mënu koo layal te ndaje mii rek wane na lu bëree bari jugul nag ngir jëmmi nit man doom benn doomu aadama rek maanaam intéressé wu ma ngir wax ci moom waaye nag la nga yore te war caa mën a doxal doxal bu rëy lii nag war nañ ci indi saafara bu doon tubaabee li ñu tuddee démissionné dañuy démissionné xool keneen ku ko mën a yor ndax dëkku sëñ tubaab bii maanaam da koy natt fii ba nit nag sëñ fàllu fii ba saam fii ba fu mu mën a doon dëkk baa ngi màgg te ñoom programme ne dëkk baa ngi màgg te loolu war nañ cee rus sëñ Muntaxa ruus ci ñi nekk ci dëkk bi ruus ci njabootuk sëñ Tuubaa gi ñii ñaa ñii ñi ngi koy xutba ku mel ne Cheikh Mamadou Rafa yi rek misaal la ci xut na xutba na ci xut boobu daaw yaram ñu bëree bari di wax dalay wër na ñii di wax ñu ci bëree bëree di wax lenn rek a tax ñuy ñuy wax mooy fa lañ mën a yem wax waaye dalay lay wër ne bu doon dëkk boo xam ne nii xam nañ ne sëñ Tuubaa tëddu fa xam nañ ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha euh, euh, euh, fanaanu fa leer na la benn bis ñu saafara yëfi ndax nit ñi mën nañ koo saafara kon li tax ñu ne tekk génnuñ saafara lu mel noonu war na ñoo xam ne warmaal nañ sëñ Tuubaa kon nag ci tuuru ASD lii nañ ci génn buñ munta yore ndox mi nañ ko jox ñeneen te dafa bari ay tappale yu ci rax yu ci bëree bari yooyu nag dafa war di saafaru muy tappale wa njuuj njaaj ñoom li ñu war a njëkk a def mooy xaalis bii di génn noonu noonu benn benn kuréel di def ci dëkk bi lu ñuy liggéey weer wu dee ñu wane ne fii la jëm fii lañ ko def ñoom waroon nañ mën ne liñ jaay weer wu ne wala at mi li nangam lay toll ndax koo xam ne par semaine da nga am 6 million wala 7 millions par semaine xam nga ne at mi liñ ci liggéey kenn xamul nu mu toll forage ba ñuy jaayeem ndox it dégguñ benn yoon ndox mu neex dégguñ benn yoon mu ne ñi ngi ñi mi ngi pan léegi nag do li indi problème yépp mooy ñaari compte la benn conte la woon def mujj def ko ñaari compte kii yore kontam kee yore kontam ku ne di xool nooy mën a def lu doon lu doonoon benn mën a defar lu bari nga xaajale ko ngir ay privilège ci liñ mën a wax ndax bu doon defar moom nit ñi du njàmbatu ndox kon xaalis boobu fu muy dugg lañu war a njëkk gën a leeral loolu moom lu ñu naqari la lu naqari njabootuk sëñ Tuubaa gi la te ñi yore liggéey bi war nañoo sagal sëñ Tuubaa ci lii day am loo xam ne nag alxaqu saabit wa amal baatilu wa in xalaa fa saahixun wa sëñ Muntaxa mi warees na ko rus sëñ Muntaxa mi war na ko sagal sagal gi mooy lan ku ne xam ne ne ku wegu la ci suñ borom ku ne xam ne ne ku sàmm la ku ne ku ne xam ne ne ku yërëm taalibi sëñ Tuubaa la kon buñ jëree ab cër bu toll ne Tuubaa dénk la ci lu toll ne tarafatul xay ni war ngaa sagalee sëñ Tuubaa ci maanaam nit ñi nit ñi nit ñi am xemmemteef ak mbégte goo xam ne maanaam liñ naan am ndox moom wëree suk fi woon a mën a jooy rawatina dëkk bi ëpp ay ay forage ci senegal man manes nga wax ñuy saa su ñuy wax mbirum ndox da ko mën a ndox mu naqari mii ba noppiit di ko di ko ñàkk far nag fii daa doon bërëb boo xam ne waroon naa doon jullit bu ñëw liñ tuddee ak cell fi lañ koy fii lañ koy njëkk yaakaare yaakaaree kon ndox fi la war a njëkk am loolu nag booy xool privilège wala ay kër yi ay kër yu rafet te yemale ko ci sab xol jiital ko ci sab xol doo liggéeyal sëñ Tuubaa ndax lo lu mu am sa lay dem tey wàllum lobi bii lobi ñu génne ko ci ndox mii li feeg dañu ci dara du saafarawu dëgg gi nañ ko wax te ña ca war a jug euh, fexe mu saafaraw mu saafaraw ndax nag la ma waxoon ci nee na ab xeex boo koy def daa am foo koy jaaree ci jaarin wu rafet muy li amoon bërki démboo njaay ku ne xam ne ne ñun ASD taxaw nañ ci taxaw bu rëy ki xamul day yaakaar ne yàq ñu tax a jug ndax dañuy xam nit ñi fi ñu toll benn nag bu fekkee da ngaa toog foo xam ne ne dafa féex neex xamoo nit ñi li ñu jàmbat lay nekk ci xooli nit ñi nekk ci biir nit ñi mooy jékki-jékki génn ci mbedd mi ba ci biir jumaay sëñ Tuubaa ji maanaam am ndox nekku fa te kenn mënut a ñàkk ñàkk ngi mooy boo waxee la ñuy njëkk wax mooy daa ñàkk war ma daa ñàkk warmaal sëriñ bi boo génne dem di am loola naqari wane fi ne ne ab bureau boo génne woon ndox la ñu bëgg ñu ne day day day day amuti teggin amul yar ci ci dëkk bi te fekk ne sëriñ bi waa ab jullit bu demee ba ñàkkum ndox lan lay lan lan moo ko dese ab jullit te doone xam nga bu doon bu doon loo xam ne lu munta ñàkk la nga xam ne lu ñu naan tiim tiim dafay am lu koy waral fii ndox manqué wu fi dañoo liggéeyut dañoo defarul li ñu war a defar liggéey boo ko bëggee da ngay dem nga wuti matériel yu baax yu wóor yu yu yu yoo xam ne ni du gaaw a yàqu nga jéem nga jëm ko defar ñun suñu problème ñu nit ku ñuul faaw ñu jéem a sensé loolu muy taf yëngal da lañ gën a man ci gis lu baax ñu jëm ko defar ba ci dëkk bi da ngay xam ne gis nga yàqu-yàqu yi nekk ci dëkk bi muy tëli beeg muy yu bëree bëri yoo xam ne ni xam nañ ne lii daa yàqu lii war nañ ko defar xam nañ ne ñun amuñ doole yi bu noor nawet ñëwee ñuy liggéey liggéey bu normal diiraa noor bi seetlu leen ko fi ne nii faaw mu des weer màggalu Tuubaa des weer wala 20 jours ñu tàmbalee di solal nit ñi di déranger nit ñi idéologie yooyu faw ñu génn ci jéem a liggéey dëkku sëñ Tuubaa bi mu mel na mu war a di ko waxaale senegal yëpp gis nga ab liggéey yow xam nga ne noor problème da nga ciy am problème mu liggéey nawet bi buy jeex ba nit ñi jaay seen gerte waa sànce yi na tàmbale jëm jëm nawet boobaa li nga bëgg defar danga ko ci defar mais defaruñ luy indi bëti nit ñi wane ñu ngi ci dara bu jàllee ñu jàll fàttewaat ko xam nga ne gis nga ne nawet bi problème bi ñu am ci lu mel ne gisal diggante kër sëñ Fallou kër sëñ Abdou Lahad foofu ni mu mel gis nga yoonu Gede wii ni mu mel gis nga yoonu HLM wii ni mu mel muy tokkorub euh, sa sëñ Mbàkke soxna Lo bi ak feneen ak feneen xam nañ ne ay yàqu-yàqu bari nañ fi doo gis ñu defar dara bala ñoo mën a sonal nit ñi daal weeru màggal gi dugg si ñu ñu baare mbedd yi na gën a sonal nit te war nañ ñoo xam ne bu doon beneen dëkk saafarawu na kon ñi nekk ci dëkkub sëñ Tuubaa bi léegi léegi ñu naan nit ñu ci bëri dañoo ñàkkutu dañoo ñàkkub yar billaahi ñàkkuñub yar dañoo am lu leen naqari mënuñ koo saafara avertissement nag ku koy def ku ne war ngaa xam ne yàggal nañoo xam ne raveltu fu muy jugee fu ne yu mel nii koy indi loolu nag war nañoo fexe ba jéem koo saafara ñi ngi jéggalu ñëpp nag di wax ne lépp loo xam ne ni xam nañ ne lu mën a defar la wala buñ ca waxee suñ kàddu mën a mën a mën a mën a saafara mbir danañ ko wax duñ ci xaar kenn ndax loolu yàlla suñu borom rek lañ koy bàyyanteel waaye ku sëñ tubaa sagal da ngay sagal sa bopp te sagal sa bopp mooy lan li la sëñ tubaa dénk jaarale ko ci say loxo nga fexe bam ñoŋ te ñoŋ gi mooy taalibe sëñ tubaa yi di naan di lekk bu baax te ñox ñox yi ci biir kër yi bis bu ñu demee ba indi ko kuñ waxe ne da ngaa ñàkk Pastef ñàkkoo Pastef ñoom ñoo sëgalu sëñ mun taxa te sëñ Muntaxa dafa liggéeyal Serigne Touba liggéeyal doomi Serigne Touba yi liggéeyal sëti sëñ tubaay yi ko mag te jiitu woon ko ci ba toog fii mu toog waaye gis naa ñu ñu ci bëree bëri sagaluñ sëñ Muntaxa ñàkk gee sagal nag xawma lu ko waral ndax nit boo ko yéenee koo xam ne ne lu baax lu ne ma nga ca sànni na ca alalam def na ca ay coona bo jàppoon naa ne waroon nañoo mën a sagale sëñ Muntaxa lu dut nekk fi nit ñi jàmbat ndox lu mat lu benn at ñaari at ñuy jàmbatum ndox te munta saafaraw loolu war nañ koo seetaat kon kiñ naan Moustapha Diagne ak sëñ Abdul Xadir nañu xoolaat waxtaanaat te seetaat lii ñu nekkee di ko teg askan wi lii ñu nekkee di ko teg njabootu sëñ Touba gi lii ñu nekkee di ko teg taalibe sëñ Touba yi ñu nekk ci dëkk bi nañu xoolaat seen bopp jéem a trouver solution te xaalis benn bii jugee ci yenn yi ñu koy dagg ci station yi ak di di di jaay ndox mi nga xam ne daanaka bërigo daana yegg bu njëkk mille la woon ko ne xam ne ne 4000 la woon mu dem ba ci yàgg mu egg 5000 seen semaine bu ne ngay am 6 million wala 7 million ci bu dee sedd naag période sedd laa wax de bu dee période euh, tàngoor xaw ma nu muy toll léegi nañ ñu wax xaalis boobu fu muy dugg xaalis boobu la ñu war a wax fu ñu dugg buñ ko buñ buñ ñu ko leeral rek danañ mën a xam ba xam ñoom ñi ngi liggéey wala liggéeyuñ kon nag ñu ngi tegandi ni fi suñu tànk di wax ne eh, li ñuy wax yàlla na jur njariñ te nag ku ne gis ko gisin woo xam ne ni dangay xam ne lu baax lañ ci jubloon a defar bu beneen yoonee nag incha allahu rabbi ñu indiwaat beneen jéegu beneen li fee eh, eh, ndox mi saafaruwut du bàyyi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer